sëñ Saliou ñu ngi fii ci jumaa ju mag yi nga xam te ne moo nekk Touba mooy jumaay Touba bi alors ñu bëggoon xam un peu organisation jumaa ji nan lay demee. waaw kay soxna si ñu lay ziara bu baax comme niñ ko laaje organisation bi euh, waaj nañ ko comme nañ ko daan waaje màggal yi passé yëpp nañ daan waajee ci bépp anam rek ren jitim noonu lañ ko waajee incha allahu taala léegi comme ziara yi euh, niñ ko waxee. comme ni mu demee moom tamit noonu lay demee ba tey wutal euh, nañ ko ay buntu entrée yoo xam ni képp ku ñëw ku war a ziare si danga fi fekk ñoo xam danañ la orienté wax na ni nga war a jaar ak ni nga war a def ba ziare ba génn te boo te doo am benn jafe-jafe incha allahu rabbi bu fekkente ni soxna yi ñoom ñi ngi jaare ci wetu soow bi ñoom foofu la ñuy jaare yëpp soxna bu ñëw rek foofu lay jaare bu fekkente ni góor yi ñoom seen ram mi ngi tàmbalee ci côté kër Serigne fallu momi day wër xam nga bi jaar ci bir yok yi wër ba ca sow ba nga xamni soxna yi fiñu duggé ci sow bi ak uh, gor yalla yi am nañ ben lo xamni moy sen mo xam lo xamni mo leen di xàjjale bo boo ñëwee da nga fekk ñu la orienter bu fekkante ni gor yalla ñu la wax ni la ngay jaar bu fekkante ni soxla ji wax la ni ngay jaar inshallah bëpp anam bo xam ne war nañ ko war nañ ko japp ni non moo gën baax ci ziyaara ak nu gëna rafet inshallah rabbi organisation bi taxaw na mom gi def ko inshallah lan lañuy faral di aaye ci ziyaare yi. waaw ziyaare yi dañ ci faral di aaye moom mooy li nga xam ne li dëppoowut ak diina la ak lislaam ak njàngaleb sëñ bi loolu bokk na ci jaxasoo bi góor jigéen yi jaxasoo loolu dañ ko fi tere ba tey itam sol sol goo xam ne sol gu la loolu dañ koy tere surtout raw na rawatina jamono ji nga xam ni xëy na ñu bari dañoo baaxoo am yenn xeeti colin yoo xam ne moom lañu sol ci mel ni soxna yi di col colu gor lol tamit mom bokku ci warmay lol tamit te wut ak dine lol tamit buñ sañon inshallah kep ko xamni xam ne nga sol sol gu yiw gu depo ak lislaam go xamni gu jot lay doon du yarax baña xat ta bo ñewé tamit ci ci barab bi nga def ndank ak te ànd akuk dal akuk tewlu bu baax a baax te xamni da nga ñew ci barab bo xamni barab bo boy sakko lu baax la te kep ko ñew ko bo bo kep ko ñew di sakku lu bax bo ñew war nga mëna tewlu and ànd ak dal ba ñew ba ziara def li nga war def lepp ta dem ci jamm lool dal defe naa ni mo gën waye baña ñew di baña ñew di nek fi di di xat-xatloo wala nga nek di wër di def lo xam dal lepp lepp en daal li nga xamni moy magal nga xam mom la señ bu woote lepp lim ci digle bu ñëwee def ko niñ ko wara a ta bañ ci defaat leneen waaw sëñ bi ñu ngi fii ci biir jumaa ji ñu bëggoon xam un peu wàllum nettoyage jumaa ji nan lay demee. waaw bu fekkee nettoyage jumaa ji moom durant semaine bi yëpp chaque jour moom moo xam màggal lu dul màggal chaque jour moom jumaa yi am na ñoo xam ñoom ñoo koy taxawee daarum xaddamatul xidma ñoom ñoo fi nekk ñoom ñoo yor bi ñoo yor jumaa ji yëpp ñoom la ko sëñ bi dénk ci jamonoy Cheikh Salifou Mbacké ci 1994 lañ ko tàmbali woon boobu ak léegi chaque jour jama jumaa yi danañ fexe ba mu set. jamono yëpp nag chaque jour bis bu ne am na ñoo xam ne ñoom ñoo fi ñëw di ko nettoyer ci bis bu nekk ñooñ danañ ko tàmbali 7 heures di matin bu ñu fajar ba pare rek danañ ko tàmbali. jumaa ji nag yaatu na yaatuwaay goo xam ne ak xumbaay ak ak yaatu na yaatuwaay goo xam ne foo ko takk moom wees na ko waaye suñu borom dimbal nañu ba murid yi mbooloo mi neex na neex goo xam ne ñoom ñoo ñëwal seen bopp sax di bindu di ñëw ngir bëgg a liggéeyal Sëñ Tuubaa ngir xam nañ liggéeyal Sëñ Tuubaa njariñ li nga xam ne moom moo ci nekk nga xam daanaka bu ñu tàmbalee 7 matin balaa 11 heures jumaa jëpp li muy yaatu yaatu lépp dana pare. ñëpp moom ci membre daayira Muxaddamatul Xidma yi lañ bokk waaye dañ koo defee dañ koo euh, defee noo xam ne euh, jour bu ne ak ñi nga xam ñoo ñëw am na ñoo xam ne sax jour ba nga leen tànnal du tee beneen jour bu ñëwee ñoo xam ne da nga leen tànnal vendredi mais chaque jour samedi bu jot danañ ñëw dimanche bu jot danañ ñëw nga xam am na ñoo ci xam ndax bis bañ amee dañ koy bàyyi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 غماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سير وفي سفر